ñëwuñu lan la waaw dafa am ñoo xam ne ci Sénégal boo jógee ni ci mustarshidin yi laa jëm duñ la may jàmm luñ la mën wax pour décourager la dinañ ko def mais jaru mustarshidin soxlawul kat na yàlla defal na lépp ba noppi waaw waaw bi ci des itam ku defa da nga ñuy chantage ñun bu ñu le chantage wul yow doo ñu chantage ki may waxal loolu mooy Sonko ci boppam Wa, man mako ko a chantage ndax bu dee dund ba tal lii ak sama keroog bañ ko jëlee prison mu nek dans le coma ñu yobbu ko principal man mi ma téléphoné professeur Watt, Khalifa Babacar Watt, ni ko taxawul ma Sonko mok Pape Alé parce que ci liquide leen la ñu jëm te ëpp na bàyyi noonu mu taxaw mom professeur bu na ne sax du demati gërëm ndax surveiller leen rek ndax bañ bu fa jógee léegi ñu jar gannaawam def leneen waaw kon nag bu demee ba yàlla may ko mu tal ko mu mel ni daf ñu ignoré maa ngi koy xaar ci législative yi kenn rekk moo ma jaaxal

fa yàllay jaar ba mu réaliser li muy réaliser kooku kenn mënu ci dara waaw bu ko defee kon li la ciy reeloo moo di tappalekat yi léeg-léeg nga gis ku téléphoné ni waaw wax leen Serigne Moustapha waaw Sonko dafa am lu ma yóbbante ci moom ma bëggoon na ma recevoir ma ni ma waaw

suñu génération bi xëy na mag ñi ñoom ni leen yàlla binde la leen yàlla binde mais ñun suñu génération bi nax ñu yombul waaw moo tax ku yebul looy def rek nga xam ko